الحقيقة والمجال نعم. <coughs> المجال اللغوي المجال نعم ما بعد من جفني قارك كل ما أنا تسانم كله أنا كل ما أنا دقدقة أول ما دي مجاز اللغوي nga déggee si ne baat bi nga ko jëfandikoo ci maanaa dëgg hmm. jëfandikoo nag ci lu maanaa dëgg-dëgg hmm. kooku mooy majaas al luxu bi foo mu xam ñoom ñaar luñ niroo maanaa dëgg-dëgg ba ak maanaa bi nga xam ni majaas la hmm. maanaam du dëgg-dëgg dafa am lu ñu niroo moo tax ngay jëlee baat bi ci maanaa cosaanam jox ko beneen maana ndax dañoo niroo dara فهو محمد قرينة بيوارنا بات بي جفن دكو ونكو چي مانا دك دك بيرن منك لفظ بات ولا قرينة بنك حال قال وانا ابن حميد نقام التحوان تظللني دي مكرل من الشمس سي جنت نفس بكن بو أحب موغن صوب إلي يجم چي من من نفسي سما بكن xaamat taxaw na tuzallilani di ma keral wa min ajabin bokk na ci kimtaan shamsun jant boo xam ne tuzallilani dana ma keral min shamsi si jant mu ne bakkan boo xam ne moom laa gën a sopp sax sama bopp moo may musal ci tàngooru jant bi di ma keral mu ngi taxaw di ma keral di ma musal ci tàngooru jant bi man maa ngi yéemu si jant bu may keralal jant xam nga ne samtun jant bii jëfandikoo ko jëfandikoo na ko jëm ci aw nit jant bi lu mu si mooy nit te hmm. jant daaw firi nit kon hmm. baat bi jëfandikoo nañ ko ci lu maanaa dëgg-dëggam hmm. samsu bu ñaaree bi nag maanaam xaqiiqa la moom jant dëgg-dëgg lañ ci namm ñoom ñaar luñ bokk mooy dañoo niroo ci kawe ak ci leer mm-hmm. ban baat mooy wane samsu bi lan mooy wane samsu bi jëfandikoo wuñ ko ci maanaa dëgg-dëgg mooy tusallilu nii mm-hmm. jant baa may keral ku ne xam ne ne jant du keral ba mu jant bi mu may keral mm-hmm. dañu xam ne jant bi lim ci namu du jant bi nga xamoon ndax jant bi nga xam du keral kon fii xarina bi law zéra alaaxa bi tax nag bi maanaa dëgg-dëgg bi ak maanaa liñ mm, maanaa majaas bi bokk mooy mushaabaha dégg nga kon samsul bu gi majaas la lu ko wane tusallilu néegi baat boobu moo wane dëgg dëgg samsu bi liñ ci namu du jant bi nga xamoon waaye leneen lañ ci namu nit waxaale woon al Buxtari yasifu mu ngi melal mubaara mubaarazatal fati bun xaaxaan hmm. li waatoog fati bun xaaxaan li asli ñeel gaynde hmm. ne falam ara gisuma dir xaamay ni ñaari gaynde hmm. asdaq yu gën a dëggu min kuma ci yéen ñaar xeraakan ci xeex idal xayaabatu ndem ragarakoon nga nik su ku doye di kasdaba aliyeer na ñu tàppal ñi bu ñu arrière mm-hmm. yéen moom du ngeen daw mm-hmm. ah, mu mel ni ñaari gaynde lay wax waaye mu mu leer la ne xisabrun gaynde la goo xam ne mm-hmm. macha dox na yëpp xii di sàkku xisabrun ak gaynde ba léegi mu mënoo xam xisab ñaari gaynde yi ma ah, xaqiqa la si na ma majaas parce que gaynde danay dox mu ne waaye wa la bu gaynde mi neen xaw mi ci nit ñi yaxsha dana song baasirel waj yi aji ñekk këram mm-hmm. axlab ban koo xam ne gaynde la moom it mm-hmm. nga dee gis ne kon axlab gii mm-hmm. gaynde gi ñaari gaynde yi ndeke benn bi ma la nit ku jàmbaar la ci na lu ko wane minal xaw mi wa axlabu gaynde minal xaw mi ci nit ñi lafzu boobu moo lay wane gii ma jaas la ma jaas dañ ko jëfandikoo ci loolu maanaa dëgg-dëgg gaynde lañ ci xama mooy ab rab ba nekk ci àll ba tey mu wax ko jublu ci doomu aadama لو كان يوانا نجوم عبد الجبل مهم من القوم كون قرينا باللفظ يالا لو تحنك نجفن لكوكو تي نموش اب نت اسكا نت كوك دفن روك جيني دك دك <coughs> كون على آخر من مشابهة بتي ليري مهم مجاز مجاز مهم دانك دوني كونك وقال المتنبي وقد سقط تي rod na mhm. dégg nga mhm. te rod na matrun tawala sayfi dawla ci sayfi dawla mhm. dégg nga maanaam dawla taw bi moo na wàcc ci kawam buñ ko tagg na ko li ay nii ñeen sama bët ku la yoon bépp bis xasul ak cër min ko ci yow bis bu nekk rek yàlla woon ma ci yow lu yéeme taxayaru ay taxayaru dana gëlëm mm. minu ci moom mm-hmm. ci am riñ ci mbir jaabin bu yéeme mm. bis bu nekk suma bët gis si loo xam ni daal mm-hmm. dana ci gëlëm mm. te muy nekk lu yéeme yéeme bu nekk ma gis yow lu yéeme loo xam ne sama bët bi da ci gëlëm ximaanatu mm-hmm. zal xusaami mooy gàddukaay bi la jaase alaa xusaamin ci kaw jaase gàddukaay jaase bi nekk ci kaw jaase ji xam nga waxoon ne góor gu jàmbaar koo xam ne dafay wéy ci mbir yi. Hmm. dañ hmm. ko niru rek jaase. bu nga wax ne mutanabbi comme jaase ba pare gàddu jaase. ba hmm. mawqiwu za saxaabi ak tàbbuwaay bi la niir. ala saxaabin ci kaw niir. taw bi wàcc ci kaw taw. affaire boobu jaaxal na. maanaam yow taw baa ngi wàcc ci kaw waaye yow ni taw nga mel ci taw. xam nga ne jaas yi benn bi. xaqiqa beneen bi majaas mhm. bi tamit benn bi xaqiqa mhm. ko wane benn baat wanewul bi moo ko wane xarinatu xaal mhm. façon waxin bi moo la wane ne yi namul ci ay jaasi mu waxee ne bis bu nekk ma gis yow lu yéeme waaw naka la gàddukaay jaas ji di nekkee ci kaw jaase naka la taw bi di wàccee ci kaw taw boo amee xel da nga xam ne dëgg-dëgg waa ji la bëgg niru leeg jaase bëgg ko niru leeg taw Hmm. kon xarina bi xaaliya la dii hmm. ko euh, waaw alaaq <coughs> bi rek na mushaba hmm. fa xaala woon at boxtari ne isal aynu nem bët bi raaxat gont na waye moom aynun mooy asa secral jawa ci njàqare fa lay si nekkul bi sirin di nëbbu maa tusiru la nëbbu na ko al adaalion faar yi mm-hmm. boo demee ba sa bët mooy wane li nekk sa biir sa njàqal mm-hmm. maanaam boo jàqee bët yi di ko wane mm-hmm. bu dee bët bi jaasuus la asansé kër day xool njàqare bu nekk si yow mu wane ko mu ne sa faar yi sa yaram bi maanaam sa biir bi lim nëbbu si njàqee dootu nëbbooti loo mën a denc te dootu nëbbooti ndax bët bi dana ko wane parce bët bi xam na Mm-hmm. kon bu fekkee sa bëti bopp mooy essence à secret mooy wane li nekk sa biir ci mm-hmm. njàqare mm-hmm. njàqare boobu dootuma na booti fa mukk alaayinu fii bët lay fii waaye fii essence secret lay fii kon jëfandikoo nañ maanaa xaqiqa ban xarina moo fii majaas la jawa waaye aynun alal da xam ne kon aynu fii essence lañ si nam ndax baatu alal jawa gi moo koy wane Mm, Assane Seck na ak bët dañoo niroo. Mm. ci gis gi ñuy gis mbir yi di ko wuññatu. Mm. kon lii mooy majaas mooy baat bu ñu ko jëlee rek jëfandikoo ko ci lu dul maanaa dëgg-dëggam kooku majaas lu mu bokk ak maanaa dëgg-dëgg bi nag kañ askane wala lañ askane baat boobu lu ñuy niroo. moo tax ñu jëfandikoo jël baat boobu askane ko ci lu dul maanaa xaqiiqa ba. il faut am lafzu benn baat buy wane ne baat bii namuñ ci. maanaa cosaan li nga ci xamoon wala mu am xaal buy wane ne baat bi nam ci maanaa cosaan bi nga ci xamoon kooku may ma jaas alluxawi albaxtu li may gëstu bi unzur xoolal ila chatri axiri ci xaaj mujj bi fi baytani awali awaleeni si ñaari baytu njëkk yi tajit da nga fekk ana kalimata shams ne baatu jant mustamila jëfandikoo nañ ko fi maana yéeni ci ñaari maana ahaduma benn bi almaana xaqiqi mooy maanaa dëgg-dëgg li sam si ñeel jant ëllëti bi nga xam ne taarif xam nga jant bi nga xam moom lañ ci nam mm-hmm. waaye moom alati mooy bi nga xam ne tasaru dana feeñ fi masriqi ci penku bi mm-hmm. subhan ci suba boo tax tafi muy nëbbu teental xuró bi ci jamono soof mm-hmm. masalan ci ngoon kooku mooy jant bi nga xam te it achamtu lañ koy wooye kon bu ñu waxee achamtu na mu si jant boobu kooku xaqiqa la wa saani ñaareel jant ba wax nañ jant na mu ci insaanu doomu aadama wa daawul wàcc ku leer kanam ush biu dana niru achamtu jant ولا المعنى معنى بغير حقيقي دق دق مجاز نعم. نعم جنت بي لن تنم في كامي ونكون بعد أشمس بعد أشمس داو تكلو وهاي نك لن تنم وده فني روك جنت كيلير وإذا تعملت بوسة لن تلقى رأيت لن يجد أن هناك نكن يكن فوق سلة لولن جوكلة وعلاقة أجلولن بولة سلة أجلولة وعلاقة أجلولة بين المعنى أصلي دي كنت معنى تشان لسمسنية الجنت Mhm. wala maanaam aarit ak maanaam bu gaar si mhm. alladi bi nga xam ne urson mi la jëfandikoo nañ ko fii ci moom mhm. boo xoolee bu baax jant gi ñu wax na mu si doomu aadama ak jant gi ñu na mu jant dëgg-dëgg doomu ak jant am na lu niroo wa hadil alaqatu lii nga xam ne moo leen jokkale yé moom ak mooy niroo luñ niroo mooy leer laan na sax ndax jëmm alwadiul wajhi bu leer kanam usbu day niroog asamt jant fil israaqi ci fenk mhm. maanaam ci ci ci ci leer gu fës mhm. walaa yumkin du jàpp ne an yel tabisa mu lënt alayka ci am la mbir mi mhm. loolu kay moom jël mu lay jaaxal fa tafamu da nga dégg min samsin ci wax gi mu wax ne samsun jant tugallilu nii bu may keral al maana xaqiqi dégg wala yumkin du jàpp ne ay yeltabisam muy lënt alayka ci wal amra mbir mi fa tafhama ba ngay dégg ci min ci waxam jum naa samsun tuzalil ni almaana xaqiqi maanaam dëgg-dëgg di sam siñal jant bu ne jant bu mooy keral moom doo ko mën a firee jant cosaan bi doo ko mën a firee almaana xaqiqi maanaam dëgg-dëgg di sam siñal jant li an na samsa ndax jant alxaqiqa alxaqiqiya bi dëgg-dëgg laa tuzalilu du keral nit kon fa kalimatu tuzalilu nii baatu dara ma keral idan kon tam naw dafay tere min iradati maanaam xaqiqi ci nammu maanaa dëgg-dëgg bu ma waxee jant bu may tere rek nga xam ne nammut ci jant ci saan mm-hmm. wala hada li moo tax tusamma dañuy tuddee xarina sun ñu di ko tuddee xarina mm-hmm. muy ak lënkale daal la tan bi aji tegtal mm-hmm. wala an al maana al ne maanaa bu ñu jublu foofu moom al mooy maanaa bu bees al aaridu bi aji gàtt loolu lañ ci nam <coughs> مجاز لوكو بي دال فو ام قرينه بو كاي واري بن مو نيك لفظيه ولا مو نيك قرينه بو خن حاليه لا واذا تاملت بو سرنت البيت الثاني للبحتري مرايت لاجد ان كلمه حزبر الثانيه بو نيار يراد رند مو بياتم الاسد غيل الحقيقي بدغري وان كلمه حزبر نك باتو غيل الاولى بو نيك يراد رند مو بياتم الممدوح كوني تاغ الشجاع بو جمبار waasa lii maanaam xëyr xaqiqi maanaa la boo xam ne du dëgg-dëgg mm-hmm. gaynde ñu ne mu ci ko jàmbar mm-hmm. loolu du xaqiq mm-hmm. waraayati dana gis ana alaqa ne la jokkale benn maanaa xaqiqi diggante maanaa dëgg li asal ñeel gaynde wan maanaa aarit ak maanaa ba gaar si yi moom al mushaabatu mooy niroo fi si jaante ci jàmbar la leen boole mooy ñoom ñaar ñëpp ñoo jàmbar waaye nag xarina naka lënkale wala euh, preuve almaania bi aji tere min iradati maanaa xaqiqa yi ci namm ci maanaa dëgg-dëgg li asli ñeel gaynde hiya moom an al xaala naka mbir mi al mafhumu bu ñu dégg min siyaaqil kalaam yi ci teggin wax ji tëddul dafay tegtale ala an al maqsuud ne kañ jublu al maanaa aarid mooy maanaa bu gàtt waaye loolu nag mooy bayt bu njëkk فلم أرد الغامر أصدق منكما عراكا إذا الحيابة النكس كذبا حزب المشايخ في حزبا xëy na boo liiree xasida bi yëpp da xam ne moom ci tagg nit la nekk di wane jàmbaaram bu ñëwee nag ba ne man nag man mos maa gis ñaari gaynde yu jàmbaare ni yéen da xam ne ko nit kooku la bëgg wax ne moo jàkkaarloo gaynde te ñoom ñaar ñëpp ñu jàmbaare dama boo xoolee fana ara dil xammee ni moom mën naa mel ni ñaari gaynde waaye boo xoolee gis ni nit lay tagg rek nga xam ne kon xaal bii mooy waral ne benn gaynde gi nit la ci nam waaye namul ci gaynde xaq hmm? hmm? kon na xaaliya ak lamsiya même xasida hmm. <coughs> <coughs> kon xaal bi ñu dégg ci min siyaaqil kalaam ci màng ak wax ji maanaam ni ñu waxee <coughs> te dul dafay tegtal ala anna al maqsuud ne lañ jublu al maana xaarit mooy maanaa bu wa mislu zaalik comme loolu yu xaal lañuy wax fii axlabu ci gaynde a ne xaw ma ci nit ñi baasiral wa ci axlaba mm-hmm. fay na saani su naka bu ñaareel bi tëddul dafay teg te maanaam asli ci maanaam cosaani asli ñeel gaynde axlaba gu ñaareel gaynde lañ ci nam mm-hmm. gaynde lañ ci nam wala wulaa bu njëkk bi tëddul dafay teg te maanaam aaridi bu mm-hmm. njëkk bi mm, jàmbaar lañ ci wal xariyatu lënkale almaane ba aji tere min iradati maana asli ci namm ci maana cosaan xunaa fii kooku labziya la wooyu moom mooy meneel xawmi te sa tibi da nga àttan baal xaasal bayaani gannaaw leeral gi an tudd rek nga jot fi bayti saani yi si nabi am na xusaam asaani yi bu ñaareel bi xusaam la ko fi xëyri maana xaqiqi ci loolu maana dëgg-dëgg ndax leen jokkale mooy niroo بتحمل الاختار تي غاد جف جف والقينة بلنكلبة توفي مبوي دنا ديغلو من المقامي تي واحد مانام من المقامي تي تخواي بي قرينة بي دنا جاك دنا جانجل لون فهي من قرينة بو حالي يلا amul benn bar buy wane xusaam bii dem ci ne moom mooy lurul nit lurul jaase waaye nag façon waxin bi gis ni day tàgg dana wane dëgg-dëgg kii beneen xusaam bi nit la ci نعم ومن ذلك كم نقول كلمة الصحابة تنير على خير بموجب فإن أنا كم أسمع من الجفن يقول إنكم يتبدو لكم متكتل على سيف الدولة تسوي في الدولة لعلاقة المشابهة نحن نجوكر موينرو بين ديجنتم وبين الصحابة ديجنتم نير في الكرم الشتاد ومن هذا نبوك تاد والقرينة لنكلمة حالية حالة أيضا بتاي أما بيت البحتري فمعنى معنى أن عين الإنسان أنك بتدمر إذا أصبر بقي بسبب بكاء سبب جوع جاسوسا لأساس سكر على ما نفسي لنا كتبكا بي من ودم سنجاقر ووزن التيتاني فإنما تنتوي نقل نقبض يقول لاق عليكم ونفس بكا بمنها سنجاقر يوي لا يكون بنكة سرا مبوت مقتون بالنبو فأنت أو ترى أن كلمة العين أنك نكبات عين بت <coughs> الأولى بجك بي ustamala jëfandikoo nañ ko fii maanaa alxaqiqi ci maanaa dëgg-dëgg mhm. waaye nag kalimata xëy ni nag baatu xëy ni assaaniya bu ñaare bi mhm. ustamala jëfandikoo nañ ko fii jaasoo si asa secret boobu mhm. moom xëyru maanaa asli nekkul maanaa cosaanam walakin waaye nag li ànd na ay na ndax bët juzun xaaj la mine jaasuus si asa secret boo biyaa ci moom yaamoon lay jëfandikoo li arab yi def ne dégg nga maanaam euh, euh, itlaq اطلاق مانام تسميه juzi واراده الكل دانيو تود tudd خاج xaaj لب lépp lañ ci nam وبها كم يعمل ليلك أطلقها إطلاق الكل وإرادة الكل إطلاق الجزء وإرادة الكل أطلقها بويل نبت وإرادة من الكل لب دائما شان عربي والمين بالعربي في إطلاق الجزء وإرادة الكل dañuy tudd xaaj fekk lépp lañ ci nam loolu nag dañ ko gis ci yu bëri tabbat yada abi lahabin atlaqal juza wa aradal kulla ñaar xey la wax moo alku fekk léppam la wax moo alku hadis bi wax ne fa ida ahbabtu kuntu samau alladi yasmau bi wa basaru alladi yabsaru bi wa yadu allati yabtasu biha wa rajulu allati yamshi biha atlaqal juza wa aradal kulla kooku sax moo gën a fës ci ne kullu lam parce que moom tudd na loxo. Mhm. tudd tànk tudd bët tudd mhm. dégg nga. Mhm. rek mooy maanaam. Hmm? wante yow talaa da nga gis am na alaqa ne la jokkale benn ay na diggante bët wala jaasuus ak jaasuus. laysat musaabaha du niroo. waaye nag maa ngi ne comme al juz'iyya la ak xaaj fii moom juz'iyya la la leen jokkale ñoom ñaar bët ak jaasuus mooy juz'iyya la dégg والقرينة لن نكلم على الجوا أنا عين في نم يثبت من الجوا جاك يكون في لفظية قرينة باللفظية علاقة ب جزئية قاعد إن نعم. <coughs> ويتدي ودنا من كل ما ذكرنا تلف من أنا كلمات نباري شمس أبي هزبر أغلب أو خسام أو صحاب أو عين استعمل الجفن لكم في غير معنى تلوس المعنى على حقيقي بيدك دك, دك. li alaqatin ngir loo leen jokkale war tibaata ak lu jokk ak lu takkee mm-hmm. benn maanaa xaqiqi diggante maanaa dëgg-dëgg ba wala maanaa xaarit ak maanaa bu gaar si mm-hmm. wata sama dañ tuddee kullu kalimatin bépp baat min haaj yi ci majaazan luxawiyan mm-hmm. loolu lañ tuddee majaaz ci wàllu luxa mooy baat bi maanaa bañ ko jox bokkut ak maanaa cosaanam bokkut ak maanaa bañ ko xamee woon loolu mooy majaaz luxa bi ndax fii réewuñ ko nañ ko xamee ci luxa boo ko firee nañ ko xamee ci loxo nag mooy xaqiqa alqaayida li mooy tënk bi almajaasu loxo bi majaas gi ka jug loxo moom allafdu mooy baat almustaamal buñ jëfandikoo fi xeyri ma wuddi aloo ci lu lañ ko teg li alaqatin ngir lu leen jokkale maa qarinata ànd ak lënkale maanaatin bàyyi tere mi laa seen maanaa xaqiqi ci namm ci maanaa dëgg-dëggam baat buñ jëfandikoo ci lu li taxoon arab yi ko jant bañ koy teg kat na muñ ci aw nit kat yow mm-hmm. jëfandikoo ko ci nit kon teg nga baat bi fu dul fañ ko tegoon mm-hmm. nag maanaam luy wane ne na moo ci maanaa dëgg-dëgg mm-hmm. <laughs> jëfandikoo baat bi ci lu dul maanaa xaqiqa te amul lenn luy wane ne na moo ci maanaa xaqiqa am loolu loolu ko mën a jox sax maanaa bi nga bëgg a jox yow ku ñëw daf koy jox maanaa cosaan bi daa amul ci loolu kon boo ko bëggee firé loolu duñ ko nam وحجي ما مبلا أم الفصل والعلاقة اللي ننكر بين المعنى الحقيقي اللي أنت معنى دق دق والمعنى المجازي معنى مجاز قد تكون من هناك مشابهة نيرو من هناك جزئية دين وقد تكون من هناك غيرها ذو نيرو مجزئية والقرينة نك لا لين قد تكون من هناك لفظية نكبات وقد تكون من هناك حالية xarina mooy li wane na muñ ci maanaa dëgg-dëgg mën naa nekk baat buy wane baat bii na muñ ci maanaa dëgg-dëgg wala boog xaal buy ci maanaa la hmm. boole diggante maanaa cosaan la ak maanaa bu nga xam ne banqaas la rek hmm. mën naa nekk niroo hmm. dara wala mu nekk jus iya maanaam banqaas bu nekk xaaj ci dégg ci ci ci kii lañ ko jëfandikoo ma ma comme aynu mooy ñu ne mu ci jaasuus boo xoolee jaasuus aynu bët la xaaj la ci moom boobu moom xaaj gi boo xoolee ci banqaas ba rek ci maanaa bi nga xam ne dëgg-dëgg ci ren moo ko ëmb bët bi aynu bi lañ ci nam mooy waaj waaye tamit jus bi tamit xaaj la ci waaj ba xaaj ci bët hmm. nekkul xaaj ci maanaa xaqiqa ba de xaaj la ci ki nga xam ni ci moom lañ jëfandikoo majaas bi booba gis ya dégg su ko defee lii mooy al majaas luxa bi ak majaas bi boo xoolee nag gars yi nañ ci def ay balaa ko yéeme yéeme ndax way yi way ni rafet la xaama tuvallilu nii wa min ajabin samsun tuvallilu nii min alchamsi هذا جميل يريد الإسلام ما استطعت ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته